ci biir kër Serigne Cheikh Béthio mi nga xam ni mooy jaamu Serigne Saliou waaye ñu toog ak xalifaam bu tedd bi sëñ saliw Thioune ñu bàyyi ko mu nuyoog suñu mbokk internet yi sang bi ñu ngi lay ziar Thioune. ñu leen di fay di ñaan Serigne Touba bofal yoolu boole ñu ko barkeb bëggoon nañoo xam dëgg-dëgg murit wala ab taalibe ban taxawaay la war a am ci bisu màggal gi. ah bisu màggal gi taxawaay bi ci am mooy lii ñu nekkee rek. mooy <clears throat> jëfe ndigalul sëriñ bi ginaar ba ci giléem ay bernde la woote ci la nu ne jàngum xasida jàngum alxuraan noon de lañ war a doxe ci bis bi te ci loolu lañ ne bëggoon na noo xam it kan moo nekkoon Cheikh Béthio ah kooku nag wax ci moom day xam naa ni manees na fee toog suba ba ngoon jot di wax ci moom jàmbaar jooji nga xam ni bu sëriñ Saaliwu la nga xam ne mësula nangu ko ko jiiñ dara loo ko masaana wax mun la man jaamub sëriñ Saaliwu la moo ma gën a lépp kooka nag liggéey bu rëy bii mu fi bàyyi yéen a ngi ci ni jàkk loolu duñ leen di présenté fii boo fi ñëwee teg sa bët ci li fi xew di xam ni sëñ Béthio liggéey bu réy la fi bàyyi. bëggoon nañoo xam diggante Serigne Saliou ak ki nga xam mooy Cheikh Béthio. ah diggante boobu nag moom day mën nañ koo seet rek ci ci ci waxin ci diggante maam Cheikh ak Serigne Touba ca cofeel ga ca bëgg ga ca pësteef ba ak pas-pas ba mu amoon ca moom waaw loolu day ndax moom day ci njalbeen sax loolu la njalbeen woon Baay Faalub Serigne Saliou woon ba na ko ba ay otom Baay Faalub Serigne Saliou la ci bindoon waaw bëggoon nañoo xam yow nga wax ñu kan mooy sëñ Saliou. sëñ Saliou man mii ndigal. Mbacke ah sëñ Saliou Mbacke kooku mooy sëriñ tuba waaw kooku mooy sëñ Mountakha ndax jataayam ba moom la fi sëñ Mountakha tooge sëriñ Saliou mooy sangub Cheikh Béthio mooy mooy mooy mooy mooy ñëpp sëñ sëñ Saliou la mu doon doomu aadama lott na ci lijjanti ko moo la day wax dëgg rek. du du ku ñuy xam mbirum yàlla la da nga ciy ne rek Serigne Touba di la ci dimbali ci ab xam-xam waaye du ku ñuy xam du ko mënuma fee neen dañ la wax kan mooy sëriñ Sall. diiraan li nga nekkoon nag diiraan li nga nekkoon nag sa waajur wu tedd wa Cheikh Béthio lan moo la gën a marqué ci moom. waaw li ma ci gën a ci moom mooy bëgg gum bëggoon Serigne Saliou te daan ko liggéeyal waaw sellal digganteem ak sëriñ Sall bëggoon na Serigne Saliou ba bi mu ko noppee gis ci saay biñ bi sëriñ Saliou ne diis ngëmam ci sëriñ Saliou ca la gënoon a yokkoo ndax xam ni du du du sëriñ Saliou du ko fi jóg daan ko dund na mu ko daan dundee baa nu ko raw daan ko liggéeyalee nu mu ko daan liggéey nu nu raw nu mu ko daan liggéeyal waaw pas boobu amoon na ko ngëm boobu cantaakon yi ban conseil nga leen jox ci màggal gi waaw ah, mooy ñu ñëw jëfe ndigalul sëriñ bi euh, mel nañu war a mel doon ay taalibe rafetal doxin wi te tënku ci ndigal li fi sëriñ Muntaxa wax lim fi digle nu tàmbali ci teyam ci waaw loolu rek lañ amoon ci lu ñu doon sàmm seenub taalibe message bi du dara lu dul rek ñu gën a nammat sunu pas-pas ci sëriñ ndax sëñ mu taxa wane na yoon sëñ Mountakha mooy sëriñ Touba te mi ngi ñu teg ci yoon yoon wi mu ñu teg nan ci tegu ku ko def dinga gindiku di nga am li nga bëgg mooy sëriñ Touba nan topp ci moom rek moom sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér maa ngi eh, ndokkeel ñëpp nag di ñaan bis bi ñu jub sëriñ Touba dimbali nu ba rek. Euh, ñu ñu defee ko ni mu ko bëggee daje ceeg ngërëmam sëriñ bi defal nu nu màggal ko ci jàmm ñaan mbas mi nga xam ne sëriñ taxa ñaan na ko ba fi mu nekk daanaka dem na mu doxe fi rek jaaree fa rek wëy rek waaw ci barkeb sëriñ. bi ñaan.